Walfadjri day dañ ma waxoon ne ñu ngi ci yoon bi egsi nañ waa kay jërëjëf euh, salaamaaleykum mbooloo mi comme que temps bi dafa xat euh, te waxtu timis dafa gaaw kon dañuy dugg directement dans le vif du sujet waaye balaa booba lu ma bëggoon ngeen may ma ma si su kilifa yi fi toog dama koy commencer ci extrême droite bi xam ngeen ne Jamra la Ligue des imams et des prédicateurs le rassemblement islamique du Sénégal mat nañu téeméeri kuréel ak fukk dañu lëkkale suñu bopp former benn coalition bu tudd ànd sàmm jikko yi ànd sàmm jikko yi voilà léegi nag yàlla dogal na coordonnateur bi moo ñëw nii il nous l'honneur devenir personnellement kilifa la bu ko yoon yónnee waaye ba mu yëgee mbir mi maak moom ñu ngi doon jokkoo par messagerie whatsapp waaye dafa dog soxlaam yépp ñëw muy imam kër Buub yal na yàlla dëgëral taxawaayam ki dend ak moom moom tam coalition la jiite bu ñuy wax l'observatoire de veille et de défense des valeurs culturelles et religieuses te ñu di ko dàkkantale mbañ gàcc imam Moustapha Diop moom mooy coordonnateur bi coordonnateur national euh, soxna si féete sama càmmoñ moom la ñuy wax soxna Bintu Diop maanaam cellule féminine Jamra yi nekk ci banlieue bi yëpp moom mooy coordonnatrice bi Biram Traoré mooy suñu assistant mu nga jógee euh, euh, Koungheul mooy coordonnateur cellule Jamra bi nekk foofu ci Koungheul En même temps, c'est lui le responsable de la, du placement des cartes de membres de Jamra. ñu ci nag ay membres lañu ci bureau exécutif bi ñu ngi leen di gërëm di leen sant ci li ngeen répondre rapidement et massivement à notre invitation mbir mi nag li ko waral xam ngeen ko moo lëmbi réew mi temps yi mu di ginnaaw bi Jamra jógee porte plainte contre la mafia bi nga xam ne ñoo sooke mbirum euh, comité euh, Miss Sénégal les choses se sont précipitées ba daal di am yeneen yu ci dugg mu daal di am yeneen yu ci dugg dal di lëmbee réew mi dal di jël de de des proportions inattendues waaye balaa maa sori président exécutif bu Jamra ci ndigalam ci ndigalam lay waxe moom moo fi yebal ki ñu toftal ci moom di imam Moustapha Diop nekk en même temps coordinateur national coalition Bañ Ngaaj imam Massamba mooma moo sàkku balaa ñoo tàmbalee waxtaan bi ñu gërëm ci turu bureau exécutif bi yëpp mbooleem xalif généraux ak xalif généraux yi am ngànt te batale ñu ak seen jawri yi nga xam ne jokkoo nañu ak imam Massamba Diop bokk ak ñun euh, préoccupation ci convocation bi ñuy division des investigations criminelles convoqué mbooleem kuréelu këru diine yi amul benn kuréel bu mu woowul bu mu jokk jokkoowul parce que ñun li ñuy def rek dañ leen di tàggu ndax ñooy suñu kilifa di suñuy wasila kon imam Massamba moo sàkku ci ñun ma ubbee foofu kon ñu ngi gërëm ñi mu jokkul ñëpp ñu fi nekkee di lim dana xaw a metti ñaareel ba ñu ngi gërëm suñu avocat ndax xam ngeen ne depuis euh, vingt quatre ans Rahmatoulaye Ali Abdoulatif Gueye dafa amoon un avocat atitre boo xam ne dañ ko affecté ci Jamra mu di ndem si yàlla si maître Xaasim ture hmm. yàlla na yàlla beesalaat yërmandeem ci kawam waaye ba mu fa jógee ñu xawoon a tumuranke waaye ndekete am na beneen jàmbaaru góor boo xam ne il partage avec nous les mêmes valeurs muy maître Moussa Sarr moo ko remplacé kon ginnaaw bi ñuy gërëmee xalif généraux yi ñu ngi gërëm suñu avocat maître Moussa Sarr bi nga xam ne du début de de de de de de l'éclatement de ce scandale des Miss ba fii il est présent à toutes les étapes xam ngeen ne que ku ñu convoqué pour une enquête de police ou de gendarmerie wala ñu convoqué la dans le cadre de l'ouverture d'une information judiciaire le réglement numéro 5 lu mois ak l'article 55 du code de procédure pénale daf la may droit dana ne répondre à aucune question des enquêteurs de la DIC tant que sa avocat teewul voilà kon nag ma man jël naa sañ-sañ boobu ma yoon joxoon ba may nañ ma suma avocat ma woo ko mu daal di ñëw muy maître Moussa Sarr Euh, na seen xel dal nag mbokk yeeg xarit yeeg am di jàmm yeeg sympathisant yi motifu convocation bi du affaire trafic de passeport diplomatique owuñu ma pour trafic de faux waaw waa Jamra du ñu trafiqué faux billets du ñu trafiqué itam ay faux médicaments du ñu trafiqué yamba liñ ma woowee woon mooy nattu bi fi daloon ndeysaan suñu mbokku taalibe daaw 2020 euh, mu di imam Abdou Karim Ba xam nga imam Abdou Karim Ba seen naataangoo la moom mooy animer euh, l' émission religieuse foofu ci TFM émission bi ñu di ko wax firi gént yéen a ngi fàttaliku nattu bi ko dal daaw xam nga téléspectateurs yi dañuy faral di woote naan ah man de dama gént lii dama gént euh, di jooy wala dama gént mer léeg nga ne dama gént di jooy mu ne la ah kon contraire bi la kon am na xéewal bu lay xaar euh, di reetaan ci gént moo mooy li bon alors mu am téléspectateur bu ko laaj ne ko dama gént régulièrement di dóor suma jabar waaw loolu lu ci firi gént wax ci lislaam imaam Abdou Karim Ba ne ko gént di dóor sa jabar day lu baax la yiw la xam nga lu saay-saay yi def hmm. ñu jël vidéo ba sa cat wa deux secondes yi mu naan gént bi ñu dagg ko de sorte que boo dégloo vidéo bi direct rek nga bës rek mu ne dóor sa jabar yiw la lu baax la <laughs> loolu la ñu def Abdou Karim mu touché ko lool ndeysaan parce que xëy na melul comme ñun ñun dañu bari histoire di xuloo ko di yéeg ko di pañante ko gëstu alors am na ñu bari ñu ko dégg man miis am mbetteel lool ci Abdou Karim ma ne waaw imam bu day ni moom ak l'islam ni mu fonkee jigéen naka lay defee la promotion de la violence faite aux femmes ma daal di ne xaaral ma dégluwaat vidéo bi ma bësaat mu ne dóor sa jabar baax na yiw la ma waxtaan seeg benn imam wax ko suñu njaqare ma ne ko ah maa ngi ñëw seeti dem seeti imam Abdou Karim Ba mu ne ñu tey tey lu leen tey lu leen ma ne ko ah, mu ne ma am naa original bi ma ne ko ah, yónnee ma ko. mu yónnee ma original bi ma taal dégg ko mu naan gént di dóor sa jabar yiw la <laughs> ndeke loolu la ñu dindi looloo ma dal nag ndax dama leen fi woowoon certains d'entre vous étaient là ginnaaw bi ma déposé plainte le cinq euh, novembre bi contre soxna Amina Badiane ci calvaire ak toroxtànge ak musiba bi ñii yi di dund dans le cadre de, de l'organisation des Miss Sénégal ndax xam ngeen ni amul dara lu ñu leen mën a nettali ndax Miss yi ñoo waxal seen bopp ndax yàlla dafa dogal Jamra depuis 1998 ka nga xam ne moo sooke woon Miss Sénégal ak Miss Jongama damay faral di lépp turam par pudeur morale parce que il n'est plus de ce monde waaye xam ngeen kan la Euh, promoteur de spectacle la woon di seen naataango bu nekk RTS dafa am bés maak Latif ñu seeti ko ne ko ñun day dañ la seetsi si si tànku jàmm ak mottali kóllëre mu di que d'abord yow xaritu Jamra nga parce que chaque fois bu ñuy organiser le 26 juin te Nations Unies décrété ko journée mondiale de lutte contre la drop comme que télé yëpp nekku fi woon ay TFM ak i euh, euh, Walfadjri et consort en yow yaa ñu daan lijjantil une équipe à la RTS ñu ñëw def couverture bi à Sorano suñu xarit nga kon werante amu ci ci cadre boobu lañ la seetsee ndax wolof dafay wax naan fegu moo gën faju mu di que sa staff parce que moom dafa am staf bu yaatu plus d'une trentaine de personnes yoo xam ne ñoo koy jàppale ci organiser Miss Sénégal ak Miss Jongama ràññee nañ ci ñaari saay-saay yu juux ci sa staff seen métier mooy métier macoro macoro mooy euh, rabatteur maanaam ay saay-saay yuy jaar ci ñoom naan ah défilé démb bi day xool naa ko pour finalu Miss bi dama xemmem numéro 4 bi wala numéro cinq bi xam nga ñoom dañu yor ay brassard numéroté léegi daal euh, sama carte de visite ngi nga fexe daal ba nga amal ma ko ma ne ko ñooñu lo laptitu ne ko ñooñu loolu mooy seen liggéey hmm. mu ne ko firnde bi mooy boo jëlee édition Miss Jongama wala Miss Sénégal bu daaw maa ngi lay jox ñetti tur Miss bu la neexee nga woote ci seen famille elles ne sont plus au Sénégal dañ leen coopté dans un réseau international de proxénétisme ñaar ñu ngay opérer dans les Émirats arabes kenn ki mu ngi Canada wala Belgique elles font de la procession de luxe di ci am alal bu dul jeex ñu neñ ko ñu ne ko dinañ la yóbbu ba Medina wan la kenn ci ñett ñooñu kër bu yéeme bi mu tabaxal ay way juróom benn R plus 1 yóbbu na ndey ji màkk yóbbu baay ji màkk ak xaalisu prostitution ñu ne ko daal loo bëgg ci firnde dinañ la ko jox waaye li wóor ñaar ñu juux ci sa staff bi ñun Jamra on laissera pas faire ndax ñu ngi yàq ay doomu jàmbur di lalal jigéen ñi ay ndëgg sarax on va waaye bu ñu sañoon yow nga fajal ko sa bopp moo gën Jamra jóg affaire bi am éclat médias yi di ci wax xam nga loolu wax dëgg yàlla ku ku ku yéene nit jàmm ak sutura moo koy def malheureusement mu indi ñaw njort bu doy waar dënn yi jóg mu am fa ay kaddu yu ñagas moo ak Abdou Latif Gueye ba am ay éclat de voix ba bureau yi dend ak bureau euh, ñu bari di dégg éclat de voix yi le lendemain nag comme il fallait le craindre presse bi jot si maa ngi rendre hommage et il est vivant il m'entend Abdoulaye Ndiaga Sylla euh, groupe Sud Communication di rendre hommage le doyen bu Boubacar Diop ancien fondateur euh, de, du magazine Promotion mu ngi Tëngéej léegi nekkatul ci wàllu presse dafay liggéey ci wàllu tariyaax wàllu euh, voilà mu ngoog euh, wàllu duñ koy di sax asraar mm. yàlla daf ko may ci wàllu ñaan ak di faj ay feebar ñoo ñaar rek ñoo ñu jàppale mais tous les autres organes de presque tirés contre Jamra di diaboliser Jamra accuser ñu de barbu d'intolérant et cetera ñun daal dañu doon alerter on n'a pas été entendu hmm. suñ jaan wàcc na waa kan moo mënoon imaginer en plein 2021 que li naroon a dëggal ñaaw njorte ba Jamra amoon ci Miss Sénégal ak Miss Jongoma en 98 que ki ko naroon a dëggal mooy ab miss bu ñu fal mu remporter la première couronne ci édition 2020 di soxna Fatim Dione ku ko mënoon xalaat parce que bu fekkoon benn waa Jamra mooy jóg yëkkatiwaat wax ji dañ na woo waa Jamra bu ñu tànqal waay waaye miss yi seen bopp ñoo wax mooy li tubaab di wax naan l'aveu et la reine des preuves Kocc Barma nettali ci làmmiñu borom la daxe hmm. alors boo leen gisee nag ñun ñu gërëm soxna Fatim Dione miss boobule parce que dafa biiral ca kaw lu bari lu miis yi doon xumtoo di wéet ak seen naqar seen gàcce ak seen tiitaange ñeewuñu koon wax fenn kii fas fitam nag loola waral Jamra gërëm ko donte le gërëmuñu la mu nekkee woon di affaire miis la mu wax na ñun ñëpp a ko dégg ñëpp a ko dégg détaillé na nañu leen lalale ay ndëgg sërëx ba dugal leen ci système ñii si détaillé na nañ leen lalale ay ndëgg sërëx ba bu compétition jeexee ñu yóbbu leen ci ay hôtel ay naar yu saay-saay dagg billet Dubaï ñëw fii ay homme d'affaires ak ay autorité de l'État yu ñàkk jom di leen fa fekk di leen def de propositions indécentes éppi mm-hmm. lan mooy ndeyu compétition Miss jeex ba noppi ba ñu xam kan mooy première couronne kuy première dauphine deuxième dauphine ku nekk xam sa notation dara des si dul neexal leen wala may leen paas ñu dem lan mooy ndeyu nga foog leen orienter leen vers un hôtel pour faire quoi c'est suspect hmm. alors ginnaaw yi y a eu des témoignages de Miss des témoignages concordants ñii naan kenn ci encadreur yi du comité Miss Sénégal naan ko waaye loolu ci couloir bi sa morom diw rejoindre na autorité sangam dans sa chambre d'hôtel sa morom diw mu nga nii eh, ànd ak autorité sangam mu ngi koy tenir compagnie yow nga toog fii di tiitaru rek donc soxna faatim Jon looloo ko sowe dëgër boppam ak ñaaw njortam alors mujj gi ñu bërgal ko mu dem ci chambre bu benn moroomam nee na fa la fanaan waaye comme que moroomam yi avoué nañu ne c'est prétendu autorité surtout naar yi am na lu ñu leen doon may naan leen dafa baax et cetera et qui s'est avéré être des mooy li xale yi di wax pion kon nag moom kon nag moom kenn xamul ci circonstance lañ ko sàkkoo ba mu jëlee ci ëmb est-ce que dañ ko drogué est-ce que est-ce que est-ce en tout cas niiruwul woon ko ànd ak sagoom d'après témoignage bi mu joxe mu ngi nii am ci doom bu am juróomi weer ba léegi kenn xamul baayam li tax ma ne dañ ko gërëm parce que ba mu waxee rek dafa def benn déclic miss yëpp am fit miss Tamba wax na miss Matam wax na miss Kolda wax na miss Saint-Louis wax na te miss yi xamante wuñu parce que édition yi bokkul. Mm-hmm. am na ñoo xam ne ci concours édition 2017 2016 mil 2020 kon possibilité complot mënu cene kon c'est pas un ñoom ñëpp ñu am des propos concordants li ci gën a yéeme nag mooy miisu Saint-Louis bi te loolu moo indi sama convocation dikk moo waxal ci làmmiñu boppam kenn saxaru ko suukar kenn sexalu ko lem que un ministre de Macky Sall moo ko ëmbal ba mu am ci ay seex voilà ce que j'ai dit léegi gars yi jël euh, wax ji le lobby qui voulait freiner Jamra dans le combat contre Miss Sénégal ak Miss Jongoma ñu jël wax ji def lu ñuy wax deep fake li ñu def Abdou Karim Ba euh, firi gént ñu daal di jël sama wax dindi le mot ministre jël ñaari tranche yu vidéo yi collé ko boo ko dégloo qu'est-ce que ça donne eh bien Macky moo ëmbal miss bi rek état bi jóg daal ne ya kii day lii laa wax yaakaaroon te doon ka yàlla am. Hmm. Hmm. xam nga bu doon moom rek moo wax. Hmm. gannaaw ay tànk xool la dafa am métti rek. ci Miss yi maa ngi teg ci micro yi ngeen déggaat ko lu gàtt la ça fait à peine vingt kon la ka dal métti na. la ñu yaakaaroon te doon ka ñaan yàlla am na. mooy li tubaab di wax naan les langues commencent à se délier. xam nga bu doon moom rek moo wax. benn waaye tàng xol la dafa am lu ko metti rek waaye Miss Matam wax na. miis Saint-Louis wax na. ak yeneen yi miss mat nañ juróomi miis te am na kenn ci miis yi nee na benn ministre président Macky Sall moo ko ëmbal. loolu laa wax xool la léegi nag bi ko gars yi jëlee travaillé ko ce que ça donne. biñ ko travaillé lii la joxe. lañu yaakaaroon te doon kañaan yàlla am na mooy li tubaab di wax naan les langues commencent à se délier xam nga bu doon moom rek moo wax benn waaye tàng xol la dafa am lu ko metti rek waaye Miss Matam wax na Miss Saint-Louis wax na ak yeneen yi Miss mat nañ juróomi Miss te am na kenn président Macky Sall moo ko ëmbal. voilà dégg ngeen de loolu la gaa yi liggéey. te moom il a été tellement maladroit man bu ñu ma ko joxoon danaa ko ko liggéeyal ba rupture boobu am du am <laughs> parce que boo ko dégloo ak loo cuune cuune ci wàllu audition audiovisuelle di nga xam ne am na coupure. bi ñuy rocc le moo ministre. alors je vous précise tout de suite et je l'en remercie le procureur Serigne Bassirou Gueye moo auto-saisiru bi vidéo bi commencé circuler ci réseaux sociaux yi man porté wu ma bien que liñ ma def neexuma waaye c'est le procureur Serigne Bassirou Gueye moo auto autosaisir waa DIC ñoo ma ko wax ba mu auto autosaisiré dafa imputer dossier bi à la direction de la police judiciaire ne leen na ngeen ma leeral kiy wax ci euh, vidéo bi entendre ko ba xam lu mu ci xam après ñun ñu xam euh, la marche à suivre alors boo ko police judiciaire jotee jotee ndigal boobu ci procureur jébbal ko à la euh, division des investigations criminelles parce que c'est un démembrement de la police judiciaire division des investigations criminelles jël ko jébbal ko Moulay euh, euh, Moulay Nakati c'est le c'est le patron de la BAG le, le bureau des des affaires générales alors kooku ba mu ko jotee nag kooku moom ma convoqué bi ma convoqué nag mu Moulay Diko c'est le patron de la BAG la brigade des affaires générales mu convoqué ma wax ma li ko procureur wax nee nañ ma ci déglu ba xam lu ma ci xam waaye nag comme que du ma cuune <laughs> waa rek kenn du cuune <laughs> ànd sama jikko du ñu cuune ba may dem dama gànnaa yoo vidéo yi nii ma def ak yéen nii teg leen original bi ma tegal leen bi ñuy bi ñuy bi ñuy bi ñuy trafiqué ñoom ci seen bopp ñoo mujj taf seen gémmiñ di ree tellement c'est alors ñu daal di ma entendre de dix heures trente ba treis heures trente sama avocat xaw a man maa jël avance pour qu'on gagne du temps après mu daal di ñëw maître Moussa Sarr rejoindre ñu parce que am naa droit de ne pas parler tant que mon avocat n'est pas là waaye ma ne daal comme que je n'ai rien à cacher j'ai commencé à parler après suñu avocat ñëw ñoom ñu daal di jot ñaari version yi ma yónnee leen ko ñoom inspecteur yëpp yónnee naa ko Moulay Diko le patron de la euh, euh, euh la BAG de la brigade des affaires générales le commissaire euh, mbay Diouf bu dikk jot na ko ñoom ñëpp jot na ñaari version lu waaye cuune cuune tu sens nettement que c'est une manipulation grotesque mm. et maladroite à partir de ce moment-là nag Euh, DIC def na tey ci suba maa ngi leen ko yëgal réquisition dal di saisir la la DSC c'est la division spéciale de la cybercriminalité foofu moom Jamra du fa gan hmm. parce que série yu bon yëpp yóbbu nañ fa surtout euh, euh, waa cirque noir man mii maa leen fa yóbbu ba ñu ne leen ràpp ci kaso bi 17 jours de prison parce que pornographie lañu doon def naan waaw li procureur mënu ci dara parce que génnul ci télé yi ci euh, kii la génn réseaux sociaux yi juum nañu parce que la loi 2002 18 euh, de juillet 1900 euh, de, de, de juillet 2018 may na procureur ak la division spéciale de la cybercriminalité ku violer les textes du Sénégal en matière de préservation des mœurs en matière de la sauvegarde de la santé mentale et morale des enfants ak di dégrader l'image de la femme ak support boo ko mënti defee muy tele yi wala des supports euh, euh, audiovisuels euh, internationaux comme Instagram YouTube la loi te tombe dessus looloo tax ñooñu ñu jàpp leen tëj leen ci kaso bi waa cirque noir ñi leen jàppoon nag miin naa leen boobu laa leen miinoon ñuy jàmbaar le commissaire Ali Kandé kon dossier ba mu nga ca ñoom dinañu jàpp saay-saay bi nag parce que ñu ngi def benn système pour remonter à la source ba xam première vidéo ba ñu trafiqué ku ko jox ku ko def saay-saay ba mu ngi ne ma nag naan ñaw waa Jamra yi tey te xam nga moom lu mu bëggoon ñu ngaat dañu avec l' quatre vingt di code pénal du xam ngeen article 80 du offense au chef de l' état la xam nga waxloo na ma lu garaaw ci Macky Sall est à ça qu'ils léegi sa s'est retourné contre eux la DIC est à leur et la division spéciale de la cybercriminalité mu ngi leen di rëbb maa ngi leen di gërëm parce que autorités policières yooyu parce que ils ont accéléré la la tey parce que ñoom xam nañu ne lii du wax Jamra Jamra di dox tànku jàmm fu ñu toll ñu ngi ci médiation yi ñu ngi ci dégg euh, médiation sociale di jàppale liggéeykat qui sont victimes d'injustice Jamra dina dem di wax euh, ces ces absurdités là hmm. donc en définitive euh, sàkku nañu ci procureur en attendant yoon jeexal liggéeyam mu jël la mesure conservatoire suivante consistant à suspendre à confisquer la licence bi ñu jox soxna Amina Badiane bu euh, Miss Sénégal parce que ku mérité licence doo comporté woo ni mu comporté woo ay xale nattu dal leen yow nga waroon nekk seen yaay seen bàjjen war leen di defal. Mm-hmm. war leen a réconforter amoo looy wax lu toog di kex kex ku ñu volé violé yow la neex donc c'est une violation de l'article 252 du code pénal qui interdit l'apologie du viol mm-hmm. l'apologie di crime rek la wax mm-hmm. ma dégg benn avocat di wax daal ne du crime la wax ma ne ah viol la loi mille vingt 2020 05 du 10 janvier 2020 criminalisé wu ko kon le viol est un crime kon ku def l'apologie du vole di ko kañ di ko rafetal di ko ñàkkal fayda di ko banaliser tu tombes sous le coup de di 318 du code pénal alors donc euh, loolu moom la ñu déposé woon le jeudi 29 ñu xam ne dana dal ci ñi mu war a dal seen kaw moo tax ñu lalal ma biir ndëgg sërëx pour yëpp a yàqu mais malheureusement heureusement procureur yeewu na ci heureusement la division de la cybercriminalité yeewu nañ ci ak la DIC ba léegi la machine est en de se retourner contre ces malfaiteurs là mm. loolu nag ñu ngi koy sant yàlla bu baax mm-hmm. di ko gërëmee surtout suñu kilifa yi mm-hmm. ndax fu ñu toll ñu ngi may xelal jaaral nii defal nii tegal fii sa tànk bul teg fii sa tànk mm-hmm. xëy na man dama ci gën a fës gën ci rey làmmiñ waaye euh, Jamra ñii ñooy kilifa yi ànd sàmm jikko ñii ñooy kilifa yi coordonnateur baa ngi ni toog cordinateur euh, euh, national Mbagne Gàcc mu ngi nii toog moo fi toogal tey imam Massamba Diop imam Massamba Diop nag semaine prochaine dafay entamer une tournée nationale auprès des familles religieuses parce que ñu ngi waajal mobilisation bu mag a mag pour que état jële fi Miss Sénégal ak Miss Jongoma gisuñu njariñam gisuñu lu mu indil jigéen ñi ci yokkute lu mu indil suñu culture suñu caada ci yokkute au contre depuis quatre-vingt-dix-huit ñu ngi pervertir ay xale ñii seen njàng yàqu na ñii jëlee nañ ci ay ëmb ñii seen famille tas na waaye loolu c'est un autre combat waaye pour l'instant nañu jàpp waa ji defar vidéo bi pour l'instant procureur joxe na ndigal n'est-ce pas euh, pour que sama plainte suñu plainte ba ñu déposé woon jeudi ñu topp ko suivre ko voilà de sorte que euh, aboutissement bi mooy il faut ñu entendre waa comité Miss Sénégal dégg naa ne nag porté na plainte waaye day nax boppam porter plainte pour diffamation porte plainte pour dénonciation calomnieuse porter plainte heureusement dañ dañuy yem juste mu jeex porte plainte pour euh, mise en danger de la vie d'autrui nañ ak wax ji ba nodd bi nodd bi daanu ñu eggali kon loolu mu def moom ngeen tuddee yéen dans votre jargon allumer des contre-feux tooñ ba noppi li ñu la sikk yëpp nga fab ko retourné ko contre tes victimes koo xam ne yow Sénégal gi ñoo la waroon porter plainte ndax xale yi yàqu te jaar ci sa comité euh, Miss Sénégal yow nga jóg ne yaay porter plainte contre tes victimes pour diffamation dénonciation calomnieuse ak mise en danger de la vie d'autrui mais yow yaa mettre en danger la vie des des filles jigéen bu nekk ci organisation Miss mu dem ba jeex lan mooy ndeyu muy dem ci hôtel bala ko cay fekk fekk ko fa mënuñ ci woon ñàkk bakkanam loolu mooy mettre en danger la vie d'autrui alors bu ko defee euh, yàlla dogal na euh, noonu mu porter plainte sans s'en rendre compte mu ngi rendre service à ses parce que le procureur bu gisee le nombre de plaintes ak tamit te maa ngi leen ciy gërëm les organisations féminines ñoom itam plus d'une centaine de plaintes ak plainte Jamra alors loolu yëpp mënul nekk un hasard te ñoo ñu déposé plainte yëpp xamante wuñu mënul nekk complot alors le procureur sera fondé de donner des instructions pour l'ouverture d'une enquête de police ou de gendarmerie beneen bi mooy beneen option bi pour le procureur moo di mu jox instruction juge d'instruction mu ubbi une information judiciaire dans tous les cas plainte bi ndaw si plainte dafa baax parce que ça va accélérer les choses su boobaa nag euh, ñu xam qui a fait quoi moo tax je rappelle jam rapporté wul plainte pour viol ndax viol bi ka ko def ak ka mu ko seqal ak yàlla kott ko xam kooku procureur la ci xarañteefam pour mu déterminer qui a fait quoi ñu dañu porter plainte pour apologie de viol mooy li ma leen nettali sànq di ko kañ di ko euh, publicité di ko woyofal di ko banaliser ak tamit complicité passive de proxénétisme parce que ki ñiy jaar ci comité bi di yàkkataan ay xale ak di leen boole ay kilifa wuyu dont des ministres ñu di leen sàkku kooku affaire proxénétisme la def même ndaw si bu ne xaw ma leen waaye ouais, il y a une complicité passive parce que nul n'est censé ignorer la loi elle aurait dû sécuriser les femmes voilà kon nag ñaari procédure yooyu la Jamra enclenché ñu ngi ciy déglu procureur je rappelle benn bi mooy contre le comité Miss pour euh, chef d'inculpation yi moo sànq te bi ci gën a fës nekk l'apologie du viol beneen bi mooy saay-saay bi def ce deepfake manipulation d'une bande vidéo kooku imputé nañ dossier bi à la division spéciale de la cybercriminalité ñaari procédure yooyu waaye nag terewul sàkku nañu ci procureur il n'est pas obligé de le faire en attendant procédure yooyu suivre leur cours normal mu jël une mesure conservatoire consistant à retirer la licence buñ demee nag ba yëpp a jeex kooku nag c'est un autre combat social politique kilifa yi toogoon sànq professeur Cheikh Oumar Diagne tamit jokkoo nañ ci dem Abdou Karim Gueye on va tenir une réunion boo xam ne dinañ ko mu fekk ko ak ñeneen activiste bul li yëpp jeexee nag ñu def ngandam manifestation précédée d'une tournée auprès des familles religieuses pour ñu jële fi Miss Sénégal jële fi Miss Jongama ndax yàqute rek lañ ci gis